boo ñëwee ñu wax la ne la ndox mi cher na nit yi ñàkk nañu ndox dañuy root ay bidon saret yi gis nañu seen bopp ndaxte ñoo ngi jaay ndox guddi ak bëccëg nga wax ne des solutions sont en train d'être trouvées li nga xamante ne mooy plan décennal bi li ci ONAS amee surtout dans le département de Pikine précisément à Guinaw Rail Nord et Thiaroye Gare Guinaw Rail Sud nga fournir ñu ay réponses avec une lucidité et rapidité de de de vos DG parce que le sur la ay caméra day nax ni ndax ñun jàpp naa ne totaliser les erreurs de ce régime à Wade relève de la pure incohérence les tergiversations sont plutôt à mettre au passif du régime qui a succédé Wade ma je pense que toog fii naan Wade moom moo waroon a def ngeen la après les colons et socialiste def pendant 40 ans Wade def na ko en trois donc moi je pense que jël vos propres lay wax loolu loo xamante ne après boo ñëwee fii dañ lay wax ne li nga waxoon ci néegu kër yi ak li nga wax ci caméra yi ñu jeex daloon ñu la ko baat monsieur le ministre en tout cas man pour man dama part personnel en honnête citoyen vous avez taclé votre prédécesseur le ministre le ministre Mansour Faye parce que pour yow moom defu daal notified nothing nothing zéro deful dara ministère bi il n'a que pour yow da nga ko jàpp ne moom xëy na daf ko comme ni ko sénégalais yi jiit dafa doon ministère de copinage yow tu es le tu es le tu es le lion tu es venu remettre les choses sur les panneaux non non non c'est pas ça il faut que vous preniez vos responsabilités l'État est une continuité. les erreurs politiques nag ça se paye cash les les communications aussi il faudra les parfaire du ñun rek ñoo ko war a def du ñeneen rek ñoo ko war a def en attendant et au passage je vous salue et salue ma maman xam naa ni yaa ngi tudd mais li ngeen fi def rek lañ ci wax def li ñuy wax 40 ans zéro action